métti lool ci candidat yi ñu neenal seeni i ñu mën koo gëm ba tey. ñu inscrire sa carte d'identité sa tur sa sant inscrire sa carte électeur mais kooku munoo ñàkk nekk ci fichier bi. jéego boo jéegi ñu génnee dara. tegaat gàllankoor sa kaw. Sénégal tàmbale parrainage ci atum 2019 ba tey waaye ay mbirum doublon ak rejet pour autre motif wëy di doon ay jafe-jafe. ak léegi nag Sénégal am na lu mu ci def jëm ci kuréel bi nga xam ne dañu ko taxawal léegi ci conseil constitutionnel. aussi euh, façon parrainage bi waaye bu weesoo loolu système bi ci boppam. bi loolu kenn changé wu ko. loolu nag moo indi moo jur problème yi. Djibril ñi nga xam-xamam màcc ci wàllum élection jàpp ni loolee mënoon nañ koo saafara balaa sax ñuy déposer parrainage yi ca conseil constitutionnel. mode de contrôle boobu la ñu war a changer def ko au lieu mu nekk mode de contrôle à posteriori ex mu nekk mode de contrôle simultané dañ lay jox benn tablette bu fekkee ni bii yow ci tablette bi jël nga koo xam ne dafa pare ne ñeneen daf koy rejeté bu fekkee ni bii jël nga koo xam ne euh, nekkul ci fichier bi daf koy rejeté. logiciel bi nga xam ne ni moom la ñuy saytoo li mu parrainage yi doon lu ñu war a jooyanti. li ñu ko sant ak ni ñu ko sante mu defee ko loolu autorité yi nga xam ne ñoo defar logiciel bi ñoom rek ñoo ko xam te matière électorale dafa am dafa nekk matière boo xam ne bii nit ñi acteurs yëpp dañ ci war a mànkoo. ñàkkum protocole bi wane nan la ñuy saytoo li mu parrainage yi ak buñ ko neenalee nan la ñuy def ngir dem kalaame ji doon lu mën a indi ay jafe-jafe naam conseil constitutionnel génne woon na benn bataaxal waaye bu ñu sukkandikoo ci Jibril Ñing loolee lalu ko ci waxtaan.